Monsieur Ousmane Diop. C'est pas pour rien qu'il a été le premier après la mairie de Thiès-Ville. Euh, quand nous avons lancé l'appel hier, on a eu pas mal de réactions. Il m'a appelé dans la nuit à maintes reprises. On n'a pas, on n'a pas pu communiquer. C'est ce matin, il m'a appelé pour me dire que Depuis hier, j'essaie de vous joindre par l'intermédiaire de mon beau-frère qui est compagnon, euh, que nous allons, quel que soit venir au niveau du lycée Marcy à 17 ñu jullee timis ba pare duñ tisbaar te excusez-moi euh, c'est pour vous dire euh, la relation qui me lie avec euh, avec euh, bon je peux pas dire ce gosse parce que est devenu <laughs> un grand vous <laughs> voyez. Parce que c'était des élèves têtus. Il fallait quelquefois crier pour leur empêcher de faire des, des, des bêtises quand nous sortions du lycée, quand nous avions des manifestations. Euh, vous Bon, beneen affaire bi contexte bu ñu nekk quand école bi mu tëjee on était s'est projeté dans la perspective d'une année nouvelle ma xool situation école quelquefois ci biir année bi doon toog nga dégg xale yi di wéexu jaan jaan jaan jaan léeg-léeg jëkki ay coow am fii parce que dañuy waa dañuy dàq benn sàcc ci biir des fois élèves yi ñëw di jooy ne seen bagage dañ ko jël seen portable dañ ko jël te xamuñu ñan la c'est pas des élèves n'importe qui mënu dugg ci école bi te kenn du xam nan bu paree mu tëb tout récemment on a pris des gens ici di déménager suñu armoire yi ak suñu table nekk ci euh, euh, ci salle salle de classe mais à plusieurs reprises ñu mujj woo gendarmerie ne ah kaay leen jàppale ñu parce que fii du ñu mel euh, ñu problème de sécurité même agent yi di été fii ñoom également ñu attirer seen attention léegi solution bi mooy. mu am visibilité école bi mais foo tourné nga mën a gis au moins la nekk si miir ba la nekk mais loolu mënuñu ko parce que garab yi dañoo sax ci école bi ba mu nekk ab àll c'est devenu une forêt de Nima où la sécurité des élèves est menacée comme dañu fi teg pour régler ay problème jéem nañu ak suñu moyen mënuñu wala c'est insuffisant moo tax ma ne woon ah naa woote wàllu waaye il faut le reconnaître du pour kii appel politique du appel pour man dama am problème boo xam ne dafa jeggi dayoo mënuñu ko résoudre mais symboliquement parce que dama gis ne école bi ñu mu mel ci dëkk bi ni mu mel ci Thiès mënuñu taxaw di ko seetaan boo xoolee ci bunt bi balaa ngay dugg école bi xoolal garab yi bu dugg ci biir nga xool doo gis bâtiment parce que ñun ñëpp la yoon donc il fallait ci cadre boobu la beneen cadre di c'est pas parce que également ñun munuñu ko mën nañ ko mais suñ ko naree def il faut ñu détourner yenn moyen yi ci liggéey boobu te ko defee da koy ay handicapé njàngale moo tax ñu jëloon appel boobu ni ah ñu ne suñ ci jàppaloon nii nañ continuer suñu euh, kii suñu suñu liggéey du impacter début cours yi du impacter les enseignements apprentissage c'est dans ce cadre ko ñu lancer appel boobu par l'intermédiaire il y un moyen actuellement demuñu du porte à porte il y a un moyen plus simple de toucher le maximum de monde mooy les réseaux sociaux c'est uniquement dans ce cadre le conseil de gestion a entamé des actions que nous avons jugées insuffisantes et avec les moyens insuffisants et on est là pour trouver des solutions aux problèmes qui s'opposent pour moi ça c'est une voie c'est un moyen de trouver des solutions à cette situation parce que ñun dañ ko bëgg a def cadre boo xam ne boo ci duggee rek nga xam ne yaa ngi ci lycée Malick yaa ngi ci établissement boo xam ne da parce que fu mu nekk nii foo boo duggee nga boo gis fa ay débris ay mat fii ay perméable bi tout loolu la de dama ko xeex avec les moyens moo tax yow nga réagi promptement man maa ngi lay remercier avec votre équipe ak sa mouvement mairie bi également a réagi parce que démb tey ci suba lañ xëy 8 fii la leen fekk avec euh, le nouveau maire euh, de euh, il m'a dit que proviseur je ferai tout pour gérer et pour rendre cet établissement kaw koy def ñu ciy remercier ñu ngi ko ci remercier bu baax ñu remercier également non seulement y a les y a certains groupes d'anciens qui ont eu à s'investir dans cet établissement ñu réaliser fi ay affaires mooy par exemple le cas des toilettes les toilettes au niveau du bâtiment parce que le nombre d'élèves chaque année ça augmente toilettes yi nekkoon ci bâtiment c'était insuffisant kenn waruma cee jiitu bu ko woote woon moom kase ndax yàllaa ko tombe ndax dimanche laa prévoir woon pour ñëw rendre ko visite bi ma déggee ni moo nekk lycée ma ne dama fiy ñëw pour yendu fi ba invité les anciens du lycée waxtaan ak sunu panel bi pour que ñu war fee ñëw ànd ak góor a Diop mi beau frère bon gàmm gi ak contretemps ñu bari nekkuñu fi waaye kon ñun doon ñëw la yem ci le ñu dégg gis appel bi ñu ne ah ñun appel bi doon lu sensible ci ñun ndax danoo am lu lié ak Lissa Malick Sy j'ai toujours di que nous sommes des fruits du baobab donc euh, bu ñu déggee lu mel noonu suñu première euh, réaction mooy loolu tudd fi ay solution bu solution nekkoon ci ñun dañ koy indi tay tay tay lépp mais li ñuy def mooy apporte sunu contribution ci commité de gestion bi nga xam ñoom ñoo fi nekk di pilote loolu loolu mooy sunu tànk euh, di ñaan yàlla appel bi nga xam ni moom la kii woote euh, la proviseur ñeneen dégg ko euh, man koo jottali man cee organiser wu pour ñi nga xam ni mooy képp koo xam ni kër gu ne ci Thiès waxuma Thiès ville rek mais Thiès région ndax lii sa Malick Sy région bi la fi nekkaloon avant muy nekkal département avant muy nekk kii bi kon nga xam ne bari na ñu fi jaar ñuy sàkku ci njaboot yooyu yëpp ñu nekk ci biir dëkk bi ak ñu nekk bitim réew ñi actif ak ñi nga xam nekk ay retraité ñëpp kenn ku ci ne lycée bi xewul dara ngir lii fi ne problème de sécurité la problème euh, de de de la ñu lijjanti loolu man jàpp naa ni pour que. nit mën a dem jàng am une bonne euh, comment dirais-je euh, am un bon cadre de vie pour mën a dem xaar résultat pédagogique yi ñuy xaar ci kii bi yaakaar naa ne àndut ak lii ñu gis donc moo tax ñuy la lancé appel boobu euh, képp koo xamante ni doomu cees la ak foo mën di ne ak képp koo xamante ni nii am nga loo jëflanteeg ñi sa Malick si ñu ngi lay ñaan nga appel boobu nga nga nga wuy si loolu moo doon suñuy tànk ci wàllu woowu beneen bi ci topp tamit mooy euh, wan naa ko sànq moom laa ko doon wan lettre bi bi ma jot euh, parce que benn journal interculturel boo xam ni euh, suñu partenaire bu yàgg depuis vingt ans boo xam ni c'est un allemand ñu naan ko Lothar Thiel mu dëkk Munich nekkoon ak man France Eh, nekkoon lycée international Victor Hugo bu Colombier et garde relation boobu ak man mu ñibbi mu Munich mu demandé ma à que ma doxalaat ko benn journal interculturel boo xam ne moom lay liggéey pour que ku représente Afrique représente Sénégal donc ma ni ko lycée Malick Sy mi ngi fi eh, lycée Medina Fall mi ngi fi donc euh, looloo tax ma transféré le le le message au proviseur mu war ko jébbal ñi nga xam ne wax na ma fii am na ñu ko war a mën a jébbal ñu liggéey ci loolu euh, dans les semaines à venir man dinaa dem Munich incha allah rabi euh, pour gën a euh, mettre loolu en place donc officialiser ko su ko defee lycée Malick Sy ginnaaw bu commuté pédagogique bi réunir ba pare. ak lii lycée Medina Fall donc euh, man ma dem foofu valider ko après ngénn commencé liggéey donc loolu moo doon sama tànk euh, may ñaan yàlla lii nga xam ne moonu fi indi ak lépp lu ñuy mbëbët yàlla sottil ko lépp. di sant yàlla ndax fii ñu ñëw tey euh, dañ fee war a ñëw ñëw fi ginnaaw bi ñu déggee appel bi ñu wuy si ko mu wuy bi nag. bi ñu yegg see fekk suñu fi proviseur bi ndax jafe-jafe yu am ci lycée bi ñu am luñ fi war a liggéey ñuy sàkk ci doomu Thiès yëpp ak ñi fi jànge ñëpp am di dugal seen contribution loolu nag bi ñu ko déggee ñun ñëw nañu man Ousmane Diop président alliance wàllu askan yi ànd ak waa bureau bi yëpp ñu ñëw fi waaye sant nañ yàlla bi ñu ñëwee ba fekk fi proviseur bi ak i délégation corps professoral bi ak yenn élèves yi ñi leen représenté euh, proviseur ci waxam wax na nañu danoo ñeewantal ndax post màggal post tabaski post électoral période boo xam ni poste gàmm la donc boo ci woowee nit mu ñëw di la indil ndimbal loolu lu metti la waaye ñun méttiwul ci ñun eh, waaye eh, ñëw neenal lii sa Malick Sy parce que lii sa Malick Sy neenaluñu ndax je me suis dit fii nga xam ni fi nga defee lépp fi nga jànge syndicalisme étudiant étudiantin fi nga nekke élève nekkoon fi délégué def lu ne daan jóg daan wuti pour lycée bi nekk ci meilleure condition d'étude pour élèves yi mën a réussir kon bu la yàlla tegee fenn wala mu mën loolu lenn li jaadu na nga ñëw fi ñëw naa fi indi ndimbal ñëw naa fi tamit indi fi euh, benn partenariat boo xam ni moom lañ war a def ak euh, euh, trait d'union bu Allemagne incha allah rabi loolu dinañ ko matale jox naa jëmtukaay yi ak lettre bi nga xam ne moom lañ ma yónni jox naa ko le proviseur dinaa jox lettre bi aussi le proviseur du lycée euh, Médina Fall nga xam ni loolu élèves yi fi nekk fii ak yi dinañ mën a liggéey ak élèves yu nekk fële ca Allemagne euh, ak Union européenne ndax Italie bokk na ci France bokk na ci ak yeneen euh, Afrique nag ñaar lycée lay doon te ñu koy représenté Thiès la ñuy dëkk te Malick Sy lañ ci taamu ak lycée Médina Fall sant yàlla ndax ñun fii ñu taxaw taatu guy gi dafay am lu ñu fàttali lu bari lu ne jaar na fi te ñi nga xam ni ñooy samay xarit samay camarade euh, bu nu gisee ñu indi fi lii war na noo xam ne fii ma taxaw na lu bari comme loolu mu nuy fàttali rek kon ñun na ku nekk làmm la nga man nga indil nii ndimbal man dama am euh, dérangé wu ma ma ñëw indi dara parce que dama am loxo joxe moom juróomi baaraam yi la ngay tàllal pour man juróom ci juróom laa ko tënk euh, dama am contrat social ak waa Thiès ma koy matale et ñi ma amal contrat religieux muy sama famille religieuse bi nga xam ni moom laa am ñuy waajal ubbiti jumaa Touba Kane foofu laa jëm nii euh, dama fa yóbbu sama contribution ñi ma amal contrat politique nag ñooñu période bu bu jotee saa su ne dinaa ko mottali kon li am solo social nag moo jafe pour man sociale juróom moo ko tënk d'abord il faut avoir le cœur de le fair beneen bi ci topp il faut nga am les moyens pour le faire beneen bi topp foog nga dëggu beneen bi ci top il faut nga doon koo xamante ni nii boo àndeek ay nit ngeen xam ni solidarité dafa jot nga jóg nu ko nii ak yeneen ak leneen donc doomu aadama euh, dafa bari loo xamante ni nii bu ca nekkee euh, na ko matale te bu sooba yàlla euh, ñun suñu wàll bi nu nekkee yaakaar naa ni ñi ngi jéem a matale ci li nga xam di ñaan yàlla sàpp